amnesty dégg naa nit ñi wax xam nga politique ku nekk am nga sa sañ-sañu xalaat parti bu ne mën nga wax la nga xalaat man waxuma ci turu sama parti damay wax en tant que président de la République gardien de la Constitution garant de garant de l'unité nationale kon responsabilité yi du ñu benn ku mu neex mën nga xalaat lu la neex man laa wax tant que njiitu loolu laa sàkku ci askan bi ak ci député Nous ñu am dépassement am pardon am réconciliation ça ne veut pas dire nit ñi gisuñu ñaawteef fi fi am mais boo bàyyee yeneen ñaawteef yu gën a garaaw am bakkan daanu kon réew dépasser li nga ci en tout cas loolu mooy position et je l'assume devant la nation devant la nation. Et j'engagerai mes députés, ceux de notre majorité, j'engage nos leaders, et j'engage même les députés de l'opposition pour nous rendre sur loi Bobo, nous toutes les lois d'amnistie pour dépasser ces difficultés. Je connais que notre responsabilité. Voilà ma responsabilité. Je l'assume. Je je suis en position. Je suis en position aussi donc Lolo, il faut aussi que ces questions soient claires ku nekk ak sa responsabilité ku mu nga mais moi je vous dis voilà la position du président de la république wax naa ko ñaari soumettre à l'assemblée nationale C'est mon gouvernement qui Lolo lay dox parce que ndigal boobu laa ko jox